bay yegsi na professeur ñu ngi lay nuyu di la dalal. Euh, maa ngi lay nuyu bu baax soxna Faty di nuyu ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi yëpp ñu soxna sama xarit. Ah, tey di fukki ñeent weeru euh, euh, septembre bu ñu waxee nag 14 xel dem ci maam Abdoul Aziz Sy Dabakh doomu Alaaji Maalik kantale borom 40 zéro faute waaye doomu Alaaji Maalik daa kantale Dabakh wàcc na de. waaw xam nga Faty dañuy wax ni nit ñu baax ñi bokk na ci seen màndarga bokk na ci seen i jikko. ñu am euh, li ñu wax discours yoo xam ni dafay traversé le temps euh, Maam Abdou ñuy di ko ñaanal bu baax ndax euh, léeg ma dégg ñu ni fàttaliku waaye du baat boo xam ni sax jub na comme ni ma koy déggee ndax ku ñu fàtte la ñuy fàttaliku ca Maam Abdou comme ni nga ko waxee léegi rek quarante ans yoo xam ni zéro faute mm. waaye it ñaar fukki ak ñett diggante 14 septembre 1997 ak 14 septembre 2020 mu mel ni tey jii dafa nekk ak ñun. Mhm. ndax discours am bis bu nekk. di nga ko dégg wala foo ko tegi mu méngoo ak jamono loolu baax moo ko waral. Mhm. loolu yaakaar naa Faty am na solo. Mhm. Cheikh Chérif. ñoo gis ni que Imam Abdou euh, comme ni nga ko waxee rek 40 euh, ans yoo xamee ni la wax dëgg fa yàlla euh, zéro faute. te tamit dafa nekkoon koo xamee ni dafa am ay discours yoo xamee ni day collé mhm. euh, par rapport ak actualité je euh, bañ fi euh, voté benn loi fële ci assemblée nationale dafa dafa def benn discours boo xamee ni discours ba mu ko defee je pense que déjà war na am ay fukki at ba mu ko defee mais jour boobu dafa meloon ni ci veille bi la ko defoon mhm. muy wane ni que ay kàddoom ba léegi dafa actuel te dañ koy war di technique nit ñi di ko déglu di si jël jëli njëriñ Cheikh wax nga dëgg xam nga euh, jamono jii ñu toll nga xam ni jukko yu bari dafa dafa ràpp am jukko yoo xam ni dem na ba raaf euh, ku mel ni Mame Abdou dañ ko war di jàngale ci école yi di ko déglu ndax euh, bi ñu nee dabaax rek dafa nekk li ñuy wax dénominateur commun maanaam dafa ndax jukko yoo xam ni lenn loo ci jël rek ci yaa baax lay lay mujje mm-hmm. ndax Mame Abdou bu ñu ci nekkoon di wax ba suba di nga gis kenn ku nekk danaan bu ngeen ci boole woon nangam. ab juddoom moo ni toll. taxawaayam ci réew mi moo ni toll. digganteem ak boroomam moo ni toll. waaye digganteem ak askan wi. ndax keneen bi mu fi bàyyi ko génn góor gu mag dafa wax ni réew mi jëppiwu ko. diine jëppiwu ko. mbokk gi jëppiwu ko. mu nekk nag koo xam ne tey bu demee Touba. da caa bokk ndax maaram. waaye boo demoon tey jii ci réew mi foofu fenn foofu dem fenn fu ci nekk. sëriñ Abdou baat bi nga xam nag mooy daa baax mooy baat bi nga xam ni yaakaar naa ne buñ ko la tudd boo ci yemee képp wax ci maam baat ndax aka mën a jokk bokk aka mën a joxe asaka mm-hmm. aka mën a aka mën a aka mën a yëpp ci yaa baax lay mujj kon bu nu xasee ba ni daa baax mm-hmm. dafa jeexal takk ndax kooku mm-hmm. lu baax la bëggoon lu rafet la bëggoon bañ na ko lu mas di wax danaan nañu tax xol yi na ko léegi discours boo jël danga naan tey ji la ko wax loolu yaakaar naa jubóog sa borom moo ko waral. waaye it xam jamono moo ko waral waaye di mbokkum réew mi moo ko waral. jokk bokk googu sax ngay wax euh, euh, Alassane laata nga ñëw bëggoon naa ñu taxaw fii euh, professeur Lamane Mbaye ñu nekk ci jamono boo xam ne daanaka ñu bëri dañuy fàtte yi tey jamono day topp léegi ngay fàtte euh, sax ña nga bokkal moom euh, dabaax da daan jokk bokk gi këru diine yi mu lëkkale leen gisoon nañ digganteem bi mu amoon ak xalif généraux yi ci Touba Mbacké waaye itam euh, diggante ñi nga xam ne sax ñu doon ay jullit muy dialogue islamo-chrétien mu posé ay yoo xam ne tey ji yaakaar naa kuy def rek da ngay feddali li nga xam ne moom la fi tàmbali xam nga faat yi nitu yàlla moo toll noonu mooy koo xam ne dafa juboo ak boromam koo xam ni bu waxee tey ñëpp dañ koy koo xam ne boo tegoon kasetan ko mm-hmm. ku mel noonu yaakaar naa ne bu ñu nekkee jamono joo xam ni xel yi jaxasoo na jiixi jaaxa am nit ñi jaaxale nga dégg mbënn mi nga dégg mbas mi nga dégg yeneen problème de société yoo xam ne ñu ngi koy wax mhm. rafet na duñu xaar rek 14 septembre mais ma am maam ñu di ko wax di ko teg mhm. ni ñu koy jàngalee comme professeur Abdou Aziz Kébé wala ñeneen wala ñeneen yaakaar naa ni dafa doon koo xam ni Sénégal mënut koo fàtte mhm. ndax nit loo xam ne koo xam ne marqué kenn jamono am na ñoo xam ni ñaar fukki at bari na lool am na ñoo xam ne fekkee wuñ ko waaye tey boo waxee ñu ni ma Abdou loolu yaakaar naa ni rafet na loolu mu nekk comme ni nga ko waxee rek muy biir Tiwaawan muy digganteem ak këri dini muy digganteem ak jàngu bi kenn ku ci nekk boo jëlee da nga naan maam Abdou man maa ko moom parce que maam Abdou lii laa xam ci moom ci lu rafet rek lañ ci xam kooku yaakaar naa ni Sénégal moo ñàkk ku mag waaye nag am na fi ay wax yoo xam ne bàyyi na ko fi nañ koy déglu te di ko transcrire di ko traduire ndax xale yi ko fekkewuloon xam mooy kan. au delà de mbaax mi. ak li nga xamante ni moom mooy jokk mbokk mi. gis nañ ne également ku amoon euh, courage la. ci wàllu wax dëgg ñi nga xam ne ñoom ñooy politique yi également ci courage. waaw xam nga xam nga xam nga loolu loolu Cheikh li la koy may mooy nit koo xam ni euh, soxlawul dara ci nguur parce que pour nga am liberté il faut que nag nga mën a am maanaam benn liberté bi par rapport ak yenn yi ca Serigne Abdou nekkoon na ko xam ni dafa toog toogaayu njaaxaanaay ñépp la yemale woon bu dëgg jotee da ko daan wax dëggu gi yàlla gi bu jotee dama koy wax ci digg balaay jaar moom bokkoon na ci ñi nga xam ni ni nga ko waxee sànq rek dafa am loo xam ni maanaam fit lay doon loolu nag juddoo moo ni toll waaye nag doy moo ni toll waaye nag ngëm yàllaam day jël yàlla teg fa du fa def leneen Seydi Hadji Malick la gis Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la gis yàlla borom njaam ñi la gis gisul kenn koo xam ni mën ngaa taxaw ba du la wax dëggam gi mhm. ku fi mën di doon président de la république muy ku mu di doon bu taxawee dina la wax dëgg gi ndax yàlla dong la ciy seet mhm. loolu bokkoon na ci li nga xam ne aussi marqué na jamono ji te mhm. war nañ ko jàngal ñii fi nekk nga xam ñoo fi nekk tey Mhm, voilà mooy tey même lancement travaux grande mosquée bu Tivaouane bi fële ca musée des civilisations ci guddi ñu nar ko amal contexte bee tax na xalif bi ne euh, dajaloo du am ñu nar ko fa defee TFM nar ci ànd ak ñoom professeur ñu ñëwaat aussi ci beneen loo xamante ni jikko la ñu ko wax régulateur social mooy ñaw gim daan ñaw diggante yi surtout bu crise amee wala jafe-jafe. loolu wax nañ ci Chérif Bataay maam Abdou bokkoon na ci wax nga dëgg régulateur social maanaam xam nga ñun suñu suñu société yi. Mm-hmm. li ñu utale ak tubaab yi boo xoolee daanaka surtout rawatina fii ci réewum Sénégal am na crise yoo xam ne lu mu am am bu ñu toogee su l'arbre à l'apparat wala kilifa yi jël kàddu am na ci loo xam ni dañ koy daal di tegaat ci suuf. Mm-hmm. régulateur social bi mooy bu coow amee bu xase ba nuyoo wala mu wax amul kenn koo xam ni muy murit di tijaan di laayeen di ku man di doon mm-hmm. di nga xam ni kii kat kilifa moo wax. Euh, nitu yàlla moo wax nit la koo xam ni euh, dëgg moo ko tax a jóg amul benn laam-laame gu ci am ñëpp dañ koy topp loolu nag lu am solo la yooyu c'est des hommes de rupture maam Abdou dafa bokk ci li ñuy wax les hommes de rupture amul benn bis boo xam ne doo jóg ñu tudd kàddoom wala jël teg discours am loolu nag li la koy may rek mooy nga marqué sa jamono marqué sa époque ndaje dañuy wax ni euh, am na ñoo xam ni le décès n'est pas la am na ñoo xam ni kenn mun leen kenn mun leen a fàtte mhm. parce que euh, dañoo nekk ci biir xol yi dañoo nekk ci ci ci biir ci biir mémoire yi eh te loolu bokk na ci li nga xam ne ñooñu duñ fi jóg mukk ci àddina ah, très bien waxtu yu jot na professeur Lamane Baye xanaa rek ñu bàyyi la nga sàdd ci kaddu en quelques secondes muy génn ko àddina itam El Hadj Ndama Fall nekkoon couturier bu mag waaw dañoo nekk ci jikko yi may xam nga kooku euh, école sax laa koy tuddee mooy l'école de El Hadj Ndama Fall école ci ay jikko